rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalqi sayidi almursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa zurriyatihi wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi ddin bokk jullit yi topp suñu jataay ci seen émission shukran ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo di nuyu suñu jigéenu bopp xaa jëngoone gomis ca France di nuyu waa këram yëpp di nuyu Sidi Mouhamed Diaby di ko wax ne jàkka ji namm nañ ko di nuyu Amala di leen ziyaara bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla suñu koor yàlla na ko yàlla nangu tey nag ñu dikk ak uh, yéen ci seen émission bi Shukran di waxtaan ci natt boo xam ne yàlla dana ko teg jaam bi jaam bi muñ ko la mu ca mën a jële Euh, yàlla wax ca alquran baada auzu billahi min alcheytaan arrajim wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci wa naxsin min alamwali walanfusi walsamarati wa bassir alsaabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuuna mbokk yi yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala nee na da ngeen fàttaliku yéen sama jaam ñi ne man seen borom danaa leen nattu ci mbir mbir moo xam ne bu agsee kenn ku nekk danga ragal loolu nag suñu ko waxee tey ci suñu jamono Covid bii neex naa jàngale waaye nag dañuy wax ni bu ko ragal yàlla jiitu woon su agsee ragal du am yàlla ne danaa leen nattu ca xiif ñu wax ne su ko koor jiitu woon miinal sa bopp koor su xiif agsee jafe-jafe du am yàlla ne danaa leen nattu ci alal juy wàññeeku ñu wax ne soo sar su ko sarax jiitu woon tàmmal sa bopp joxe da nga ne kon bu wàññeeku alal amee jafe-jafe du am yàlla wax ne danaa leen nattu ci bakkan yuy rot ñu wax ne su ko jihaad fi sabilillahi jiitu woon dàggante ak sa bakkan su ko jiitu woon kon bu bakkan bu rot amee jafe-jafe du am yàlla ne danaa leen nattu yit nag ci li ngeen di bay lu ngeen bay ma yàqu ko di seet nag fu ngeen toll yéen waaye yàlla indexé jullit ñi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bégalal ñi nga xam ni yii ma lim yépp bu tege ci seen kaw duñ ca teg dara lu dul ñun de ci yàlla lañ jóge woon ñook liñ am waaye it ci yàlla lañuy dellu ñoog liñ fa jiital moo tax euh, nit ki saa bu ko nattu dale rek na jàpp ni ku ko gën fuuf jiitu woon na ko fi yàlla teg ko nattu ba parce que bakkan a gën a forte yàlla du ko fi jële ndax nee na kullu nafsin zaiqatul mawt kullu man alayha fanin kullu shay'in halikun illa wajhahu dañuy wax ni ñetti yooyu nag bi mu ko waxee bi mu ne kullu nafsin zaiqatul mawt dañu wax ni univers bi li fi nekk lépp dañu yëkkati seen loxo ne kon ñun mucc nañ ci dee ndax yàlla daf ne bakkan bu ñam dund bu ne dinaa la ñamal dee yàlla ne diggee dee du ngeen ci yam yéen ñëpp danaa leen fi jëlee ndax kullu shay'in haalikun illaa wajhahu lépp lu fi nekk dana fi jóge bi yàlla waxee loolu kullu man alayha faanin garab yi xam ne ñoom ak doj yi yàlla sédd na leen cër ci dee mu des malaayika yi ñoom ñu bëgg a boole seen bopp ci ñi fi sax yàlla ne kullu shay'in haalikun illaa wajhahu mépp mbir mu mu mën a doon tañ tracé ko mu nefi ñu sos ko te amutoon dana fi jóge man dong may yàlla des fi kon yàlla rek ay càppaacoli ah, mbokk yi yàlla wax ci alquran nag ne baada alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatana alladina min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkaadibina mbokk yi yàlla wax na ci alquran ne ndax sama jaam ñi dañoo jortu ne ndax nit ñi dañoo jortu man yàlla dama leen fi wàcc rek ñuy woote woonaan gëm nañ yàlla gëm nañ yàlla te natt du wàcc dogal du wàcc déedéet du deme noonu nag su boobaa yàlla la mu jublu ca natt booba pour xam ñiy woote woo li ñuy woote dëgg la ci ñoom wala du dëgg ci ñoom ndax yàlla nee na natt woon naa ñi leen fi jiitu woon defal leen épreuve bi ca laa xamee ñi nekk ci dëgg ca laa xamee ñi nekk ci caaxaan kon natt mënta ñàkk parce que bi mu ne xalaqal mawta wal xayaata daf ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan kon yàlla nee na dee laa njëkk a ci dund soo ko indi dund kon bu dee amaatee nit ki dafa jóge fi mu fi mu nekkoon delluwaat fam fa mu jóge woon euh, mbokk yi ñu jàppe ci ne nag yàlla dee defu ko ci jaam ñi ngir coxor déedéet dafa am lu mu ñu sant di seet niñ ko defee ndax nim ñu ko santee la wala du noonu Euh, te yàlla subhaanahu wa taala nag munta ñàkk mu nattu jaamam boo xam ne nee nga gëm nga yàlla te dañuy wax ne jullit bu nekk nag yàllaa ngi lay nattu ci kemtalaayu na sa ngëm toll ci la la yàlla nattu nag comme ni mu ko waxee ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ashaddu nnaasi balaa an ñu ne al anbiyaau fa saali summa saalixuuna summa al amsaalu fal amsaalu mu ne yabtaliya rajulu ala ala xasabi diinihi fa in kaana fi diinihi silaabatun ziida lahu fi lbalaa'i yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ne ñi gën a metti ay nattu muy yonent yi ñoom seeni nattu kenn mënu koo xayma cent vingt quatre mille prophètes nattu boo xalaat ci kaw àddina teg nañ ko ci seen kaw yonent bi ne ku ci topp ñu ne ñu baax ñi kon ku baax ko ne séddal sa bopp nattu ca la gaa yi amoon ñu ne ñu ci topp ñu ne ku baax rek ñi baax ña topp ñu baax ña ca topp ñu baax yonent bi ne nit ku nekk danañu ko nattu kemtalaayu fa diineem toll doonte la am na ci diine lu toll ni geñuk tubéy lu toll noona danañu ko ko nattu ci ay balaa moo tax yàlla wax ci alquran ne am xasibtum an tatruku wala maa yaalami llahu alladina minkum wa yaalama saabirina ndax da a jortu ne yàlla daf leen di wàcc noonu rek du leen defal épreuve di seet ci yéen ñan ñoo am volonté pour jëm si ci moom du seet ci yéen ñan ñu dëggu ak ñu mën a muñ parce que tamit nag mbir mi pour nga àgg fi yàlla soxla dëgg da mën a doon koo xam ne da ngay muñ nattu yi waaye muñuloo nattu yi bëgg boo demee yowmal xiyaam fekk fa lu ne jópp mbokk yi munta nekk teyit nag àdduna du kër mbokk yi passation lañu fi def dañu fi indi am lu ñu sant balaa yàgg dara ñu jóge fi ndax boo seetee ne nëgë ni daaw am na koo ko bokkoon ak di ko def te yàlla dogal na ren wàq nga suuf si dugal ko ca te wóoru ndax déwén dana la fi fekk loolu moo la war a ñaax motiver la ci nga gën góor góorgóorlu jox sa bopp yàlla moo tax borom téere ba dafa wax ni fa zawit min ad dunia fa innaka raaxilun na nga wut yóbbal ci àddina parce que yow da fiy jóge dañuy wax ne nag ku jëm cib dëkk tukki te yàgg-yàgg da ngay ñibbi war ngaa fexe ba booy ñibbi nga yóbbaale sérité ba fa nga jóge woon xam ne yow kat fa nga nekkoon doon nga góorgóorlu ndax lan fala budda min zaadin li kulli musaafiri parce que tukkikat bu ne mun ta ñàkk yóbbaale sérité nag mu delloo waxaat ne fa zawit min a dunia fa innaka la tadri isa janna laylu hal tahishu ila al fajri mu delloo waxaat ne na nga yóbbalu ci àddina parce que yow mi ñu wax yóbbalul xamuloo ndax guddi gi xar gi fajar gi dana la fekk wala déet waaye mbokk mi kon góorgóorlul nga yóbbalul ah mu dellu waxaat ne nag wa kam min fata yamsi wa ak daaxikan wa akfaanuhu mansujatun wa hiya la tadri mu ne bari na ndaw loo xam ne xëyee na kàttan consulté ay cëram yépp dox làmb am xelam mu dox nga gëdd poos bi fekk ci loo ca def nga làmb wér-gi-yaram gi état de santé bi normal te fekk na ndeysaan place biñ def sa càngaay yaa ngi koy romb waaye xamuloo ca dara kon mbokk yi nañu rafetal adduna li ci war rek mooy rafetal mbokk yi borom téere bi dellu waxaat ne wa kam min saxihin maata min gayri illatin wa kam min saqimin aasa xiinan min addahri mu ne bari na malaat boo xam ne nit a nga dem seeti ko ñeewante ko tax nga tiim ko di jooy ngir yërëm goo ko yërëm te fekk na yow yaa koy njëkk a dugg biir suuf waaye xamuloo ci dara duñ la wax dara duñ la wax jarul nga di ko jooy ak nangam sàngam yooyu yëpp du ci am moo tax boo fi dundoon junni at wala ñaari junni at it du tee dangay dem moo tax mbokk yi nañu góor góorlu ba tabax bi ñuy tabax immeuble yi te fexe tabax bàmmeel yi ndax bàmmeel yi mooy rez de yi fa lañ war a dem te loo fa yóbbuwul ci yiw wu baax doo ko fa fekk euh, dañuy wax ne am na suñu benn maam bu baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacke radiyallahu anhu dégg naa dafa daan wax ne néeg boo xam ne càkkar gi tey nga ko ràbb ñax mi ñax mu bees la pajaas bi pajaas bu bees la nga tëdd ca lal ba mu ami matt kenn yóbbuwu ko fa yaa ko fa yóbbu kon nañ góorgóorlu ba ràbb bàmme li fexe ba mu rafet euh, sayidina ali nag karamallahu wajhahu biñ ko laajee ne ko dañu bëggoon nga melalal ñu àddina daf ne moo naka laay melale kër goo xam ne njëlbeen gi du dara mu gi day jeex ndax lu mu la joxit dana ko nangu boo seetee xéewal goo mën a nekk wala wërsëg woo mën a nekk am na ku la ko ëppaleen fuuf nekkoon fi ci kaw suuf si di daagu ëppoon la sañ-sañ te xotti nañ suuf dugal ko ci na Ali nee na kër gu mel noonu kenn mënu ko misaal te nee na nag li gën a yéeme ci àddina mooy li nga fi am li lew dañ koy regle li ci lewul dañ la koy duma kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci def lu baax ñu leen jox daje ci seen beneen jataayu shukran ci dakar midi point net wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu